bëgg ma penda waatal ma penda sëñ Babacar si xol yi sëñ Babacar si xol yi eh sëñ Babacar si xol maam Abdou Aziz si xol yi sëñ si xol yi eh sëñ si xol yi eh, aram loo Kumba eh aram loo kumba cam aram loo kumba cam eh mbay mbay mbay dama njaay Babacar Sadikh mbay kaay waaw waaw waaw waaw dañuy ambiance dañuy ambiance eh dañuy ambiance eh dañuy ambiance kii dañuy ambiance eh ñëw la ñu ambiance ñëw la ñu ambiance ñëw la ñu ambiance Asi Ndiaye taaliba Seex la Asi Ndiaye taaliba Seex la Magu Baay Ndiaye taaliba Seex la ajatul jaara jéen taaliba seex la yaayi aji géy taaliba seex la eh mbay mbay mbay xalifa yi dafa jaay babaraka sadeex mbay bu fee ragin ragin ragin ragin a dama kir ki dama fa ragin kaay fii waaw ci loolu doon nuyoo ñaw nuyoo bi foor na fi nga nuyoo neex na ma bakka rek dara maanaam loo kumba ca am siidi faa de ma mi ci jawaar neenaa la ñitub yàlla aku Serigne dafa bokkul Serigne Babacar Sy kooku ñitu yàlla la xam naa ne taalibe Cheikh yi bëgg nañ xam nga man am ambiance lii laa ci bëgg damaa bëgg boo ñëwee di laal gars yi foo xam ne bu buñ toogee seeni saal ak seeni néeg ak biir ak seeni euh, euh, euh, bureau yëpp mën nañoo yëngatu te lii yëngal la ko ne mën nga dindi micro bi nga toog nga waaw nga nga boo paree delloowaat ko fa voilà Pape mën nga ko génne tuuti ci kaar bi rek maa la wax loolu très bien foofu baax yes ak mi ngi baax euh, donc mi ngi noonu léegi-léegi wax nañ ko lamin Kaolack la ñu dalal Lamine tey boo ñu doon wax fi nga bokk parce que itam nit mën nga ko présenter mais loo xam Massamba Massamba gën laa am boppam tey yow ñi lay seetaan yow yaa leen gën mën a wax ana moo di Lamine Kaolack doomi géwél la ak fan la bokk waaw Lamine Kaolack nag mm-hmm. macha allah fu ñu jaar bari na lool mm-hmm. ndax fii kuy ndaanaan rek tëggal nañ la mm-hmm. waaw ku mel ni Titi tëggal naa ko ànd ak moom fu ne si àdduna mm. titi maa ko doon tëggal man ak Baye Demba. Mm. waaw ñu ànd dem fu nekk lu mu ñoo ko tëggoon macha allah. Mm. di nuyu Daba Sey Daba Sey. Mm-hmm. ak moom lu mu way maa ko tëgg. ndeysaan Ablaye Mbaye yàlla na ko suñu borom teeru si àjjana daw si ak kooku lu mu wayoon maa ko tëgg macha allah. Mm-hmm. waaw di nuyu nag Viviane Sidit. Mm-hmm. waaw sunu yaay jooju yaay ju baax jooju ah? yaay Philippe ak Zeyna. macha allah mu doon nag suñu yaay lool doon yaay faal nag. Mm-hmm. macha allah. daanaan nuyu Jolof Band maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. waaw bu lim juum. Uh-huh. waaw di di la wax nag lamin Lamine Dieng Saala man Dieng laa sant. Dieng waaw. Mm-hmm. gaa yi ñoo Lamine Kaolack Lamine Kaolack mooy sama turu alsi mais man jeng Saala laa sant. waaw xadi seen di sama yaay. sàmmay sa Dieng di sama baay. waaw mooy doomu géwél pire nag. géwël si ndey géwël si baay. Mm. waaw géwël si ndey géwël si baay. Mm. macha allah di la wax nag fii nag tey nag tey lépp lay tëgg. Mm. danañ baara mbay dinañ ceebu jën. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. dinañ yaaba composé tey lépp mm-hmm. la ñuy tëgg. tey moom fii moom tey fii dina wàcc. dana neex maa wax loolu. ah mais nag léegi nag problème bi loolu la. Mhm. léegi tëgg mi rek for nga am leneen loo koy booleel. waaw tëgg mi rek mën nga di tëgg nii rek nice mais foofu ngay def say affaire bopp ngay def say singal di sànni. Mhm. def say single di sànni di single di def say singal di sànni. Mhm. si nga mën a am sax say affaire yoo xam ne maanaam lu lu ñëwoon maanaam yokk yokk xar mi karaw. loolu loolu laa ko tuddee. yokk xar mi karaw am say œuvre bopp quoi. waaw am say œuvre bopp. waaw dama gis am na ñoo xam ne ñoo ngi tëgg kat bari bari na si mbay jee fay coombaay waaw ñooñu xam nga coombaay di mbax papax coombaay da doon coombaay da doon tëggal Omar Pène mais da doon def ay singalam dëgg la la waaw mbay jee fay day tëggal Youssou Ndour mais day mm-hmm. def ay léegi ay singalam def ay singalam génn ay singalam di sànni mm-hmm. kon loolu la rek Papa Ndiaye coppet mm-hmm. gisoo ko day woy day tëgg mais day def ay singalam di sànni léegi affaire bi foofu la toll mais doo yem si tëgg mi rek léeg-léeg nga jekk-jekk def sa single sànni mm-hmm. kon fii tool damaa génne single bu bees sax àjjuma bi passé la génne single bi mm-hmm. single bi tudd c'est beau c'est vraiment beau fekkee xol sa fekkee da nga am xol bu set c'est mm-hmm. beau fekkee xol bu bon c'est pas beau ah. waaw single bi noonu la nga ko tuddee c'est beau laa ko tuddee kon yow beau bi waxoo beauté extérieure bi mais beauté intérieure c'est-à-dire xol quoi ngay wax fa laay waxee ok waaw fekkee yow ah, man bi ma déggee c'est beau bi pour man yow sa sañse yeeg xam nga yow da ñëw dangaa ngaa kaw Kaolack ñëw Dakar bëgg woon booy Médina yi que yaa leen dàq sañse man pour man loolu ngay way non non déedéet way moo loolu de way moo loolu dama ne maanaam fekkee fekkee am nga xol bu set mhm. c'est boo mhm. fekkee xol bu bon c'est boo beau mhm. c'est pas beau xol bu bon c'est déedéet xol bu bon moom yow am nga lii kii ne waroo am lii ah waaw c'est pas beau moom c'est pas beau balaa ñu tàggoo dinañ ci ñëw Mouhamed dinañ ko jox insha allahu rabbi téléspectateurs yi xam naa ne ñàkkul ne sànq am nañu ko seetaan laata ñuy tàmbali waaye dinañ ci dellu si waat Lamine tey ban nga mën nga ñu wax depuis kañ nga dugg ci wàllum percussionniste laataa maa dugg ci way yi ak taasu lan moo dugal lamin ci tëgg ak kañ la commencé tëgg ah, percu moom percu moom yàgg naa si lool mm-hmm. man école sax defa naa jànguma école mm-hmm. waaw jànguma tëgg ci table ban yi dégg nga lu ma wax école ma ko. jotoo dugg man lay yàq sama lii lay tax dugg ma suñ ma waree dugal ma daw ne leen bàyyi leen moo dem mbalax yi rek tamit. Mhm. bàyyi leen moo dem mbalax yi kii na mu noonu da koy boole ak ma leen ànd ak yooyu. Mhm. ah xam-xam bi xam-xam bu muy gën a mën a jàpp moom sabar gën a mën a jàpp. Mhm. sama yaay ne ma nga ne ma ne ko ah loolu laa teel wax teel naa la wax sama bopp. micro bi. ma ne ko teel naa la wax sama bopp xam-xam bu muy njëkk a jàpp sabar yi laay njëkk a jàpp ba pare. mi ne ma ah. sama benn ji jaay di mun a bàyyi tëgg mi soo bàyyi tëgg mi naa la yóbbu Europe mën na ko bàyyi tëgg mi tëgg mi mën ma yóbbu Europe mm-hmm. bàyyi tëgg mi ko bu ma yóbbu Europe sama liggéey man na ma yóbbu mm-hmm. mu ne ma ah loolu ngay wax mën na ko si sama liggéey dina ma yóbbu Europe mm-hmm. macha allah yàlla def na def naa màkka rek laa demagul fu fu ne laa dem si àdduna macha allah fu nekk sabar yi ñoo la yóbbu sabar yee mu yóbbu fu ne macha allah macha allah moo tax dama ko gën a fonkal gën ko cëral ku ko fonk nag cëral ko dinga si am lu nekk. barke Mouhamed. lii soo ko fonkee nga am foo ko teg jox ko cër respecté ko xam mooy lan. dina la teral dina la yóbbu fu nekk. parce que mel ni Thio Mbaye Mbaye Dieye Faye Alaaji Faye. sabar da teral. Alaaji Doudou Ndiaye Kumboros. Alaaji Doudou Ndiaye Kumboros sabar da leen teral. lii beneen affaire lii lii si musique da balaa nga xam loolu na Pape Diouf di woy sabar yi ñëwul neex. nday Viviane di woy sabar yi ñëwul du neex. Mm-hmm. ndax lii xorom la si. xorom la si. dëgg la dëgg la ah, la moo tax ñuy wax mbalax mm. suñuy wax mbalax kay lee tax mm-hmm. ndax clavier bi ñëw di bong di jee waykat bi di woy li ñaari yi tëggul sabar yi cool ak mbal mbalax bi suñu tëggul musique bi du neex de très bien dañuy dañuy dañuy demaat ci beneen morceau nga defaatal ñu leneen bu ñu ñëwee ñu ñu ñu ñu soog a yaatal waxtaan wi yaay xool nag foo ma yóbbu bu la neexee ñu dem ci baara mbay ji nga doon wax bu la neex waaw lu la lu la neex rek micro def kii ci pied bi titre pied bi aja pap retour aja aja aata dimbali ko waaw góor très bien yes yes yes yes aja pap clavier Silla Gambia Ndey Silla sa Gambia Oumou Bayo mooy sama jabar Oumou Bayo mooy sama jabar Awa Buuru Këram yaa ko baax Wura Sagit Wura Sagit Wura Sagit Wura Sagit Sagit Sagit Sagit gëj naa dégg baara mbay ju fare nii de baara mbay jee fatt xam nga baara mbay ju fatt gëj naa dégg lii xale yi léegi tëgg bi dañuy dañuy bara bara rek di dem lamin lamin bàkk yi nga dugal gëj naa koo dégg ci baara mbay micro bi lamin micro bi <laughs> moo ne ko affaire yi loolu la de gëj naa dégg baara mbay ju mel nii de waaw ah, mais affaire yi moom de ah, moo ne ko affaire yi dafa war a leer naaj nag yée bi leer différence sabar yi waaw maanaam kii waaw micro bi kii mooy ndeer gi ndeer ok yi benn son bokkut ak sa morom bii mooy ndeer bii mooy cóol danga may jox bu nekk soowam nga wax ma bu waaw kooku loolu ndeer la moom njariñam lan la d'abord waaw waaw nekk ak métier de. xam nga yow différence sabar yi moo la impressionné man xam nga lu moo impressionné complicité bi ngeen di am not yi ngeen di tëgg lan la lu ngeen di répété la lu ngeen di waxante ci biir tëgg mi la comment ça se passe ba foo foo dem rek xale yi dañ lay topp dañu xam fi nga jëm. non mais ñii moom dama yàgg tëgg ak ñoom. Mhm. ñu xamante. du may tëggi fu may man dem ñoom dama leen yóbbu ñii. ok fu may dem dañu nekk sama ginnaaw. Mhm. soo tëggee benn bàq nii rek. soo tëggee benn bàq rek suñu xoolante ñëppay tëgg bàq bi. Hmm. dafa mel ni ngeen déggoo yéen ñaar rek. ok macha allah da ngeen déggoo yéen ñaar ak Papa Ndiaye. Hmm. moo tax ñëpp da ngeen bu ñu wax Papa la trian la. Eh. la <laughs> sama histoire la sàcc daw ak moom dem Nicaragua toog fa. ah Papa Ndiaye am sa rakk mu tëgg soirée nga ñëw taxaw ko wax dëgg yàlla taxaw ba taxawaay bu rafet den nag man darma man sama mag ji moo ma bëgg nag wóolu ko enveloppe yi ma paree jox ak lan ma indi ci a lépp mën a wax Papa Ndiaye téyel ma. avant soirée bi jëf Papa Ndiaye ni tir boobu la gën a xëy si ma laajte Papa Ndiaye anam ñu ne woon Nicaragua ma ne sama xaalis la demee. mais nag kaa eh. a la. mais nag sa waay la nag. waaw ah, sama xarit la. yee sa xarit la de. la lu leer laa la wax samedi boo ma xam ne sama xarit la fu ma nee fekk na ma fa. non naa soirée macha allah. macha allah loolu ah soirée bi ah. gala bu am solo macha allah. waaw ñoo ngi remercier ñu ñëwoon ñëpp. waaw ñi jëndoon seen ticket ak seen doole def si. Mhm. waaw ñoo ngi remercier ñëpp. ñun moom li leen am. Mhm. ngay def dara ñu ñëw jàpp si. Mhm. waaw ñoo ngi nuyu ñëpp ñu ñëwoon si soirée bi. ñoo ngi leen di ñaanal wér gudd fan xéwal gu bari nag. waaw amiin yaa rabbi waaw looloo asi asi boo amee beneen question laataa ñuy avancé. non man kay fu mu toll nii xanaa peut-être complicité yu mu am ak artistes yi nga xamante ne moom nga doon euh, ñoom nga doon cité sànq. est-ce que ba tey yaa ngi liggéey ak ñoom wala da nga daara yoo rek di def non ba léegi Viviane maa ngi tëgg ak moom. Viviane dama koy tëggal. waaw Viviane nii maa ngi koy tëggal nii. Mhm. moom laay tëggal nii dama koy tëggal waaw di tëggal Daba say mhm. waaw ñooñ ma ñooñu maa leen tëgg ak ñeneen ak ñeneen sax ñoom ma yow ak Pape Birame dama limo dama lim. Mhm. Pape Birame. Pape Birame def nañ benn single sax. maa ngi moom nii mu war a génn nii. ok waaw Pape Birame sama xarit la moom nit ku baax la. macha allah. Euh, vu que fréquenté nga woykat yi ñu bari ci ñoom duñu mën a bañ a waxtaan ci actualité sobise bi tey tëggkat nga yaa ngi ànd ak ay woykat yu baree baree baree bari relation bi woykat di am d'abord ak ay tëggkatam wala ak ay feccikatam parce que tey mën nañu wax actualité sobise bi li ci gën a def faar bokk na ci loolu ci ay problème mu fecckat bu jóge ci euh, groupe bi fekk beneen scène wala yooyu tey booy gis polémique boobu di am nan nan nga koy nan nga koy kiiwee en tant que peut-être ku leen mag jiitu leen ci aar non non non affaire yi moom xamalal la. Mhm. gisoo nit mën nga nekk si group sax si groupe mhm. maanaam kon nga nekk si benn groupe di tëggal groupe bi. Mhm. kon nga xew la nii ngay tëgg soirée mën naa ñëw bof mais fa nga nekkoon fa nga nekkoon ba tey. nekk fa. na fa nekk. dégg nga ma. waaw ah. tey maanaam yow ngay tëgg soirée tey mën naa ñëw tey jékki-jékki ñëw bof si. nga mu ñëw tey tey. jël sabar bi jël micro bi ñëw wax seew yow. waaw man man daa loolu laa wax moom fi nga nekk moom. Mm. fekk am nga fa jàmm. Mm. nekkal waaw. ok waaw mais mais yow nan nga def ba mën a am liberté wu tey nga tëggal Daba Seye suba nga tëggal Viviane te du la yàqal dara wala indiwul benn concurrence wala benn malentendu seen biir. non kon maanaam kon kon maanaam problème bi xam na la. Mm. léeg-léeg yi duñ bokk sax man léeg ma tëggal kii. ci ngoon gi laa koy tëggal guddi gi ñu tëgg ma dem tëgg ji fële. Hmm. kon dama say chaque dama koy tëggali dama koy dem jégil ko soir damay dem jégil ko moom ay xew su ma ko hmm. tëggalee xew bi ba pare guddi gi damay dem jégil ak Viviane Iris. waaw Iris Almadi fële ñu jégil chaque samedi. Hmm. waaw yàqul dara. yàqul dara de. kon waykat yi war nañ mën a comprendre seen ay musiciens moo xam fecc ci kat bi ku mu mën a doon bu demee ci beneen seen mu bañ a indi ne si ñoom kase. ok si bari na am na ñoo xam ne dañ fiir bëggul ngay tëggal keneen ñoom mm-hmm. si ñoom rek loolu moom am man waaw man moom loolu xam naa ko contour si benn côté mm-hmm. waaw loolu moom contour naa ko da nga bëgg ba nga bëgg gars yi am liberté wu loolu amul benn problème yow yow koy loolu yow affaire heure yi bokkuñ koy kii mën na dem xari matte fële guddi mu demoon xari mat loolu yàqul dara yàqul dara ah? jàppale ñi nekk seen ginnaaw waaw problème baa ngoobu bilaay affaire yi moom méttiwul pour man de xanaa nga bëgg li des ci waxtu yu bareetul xëy na bu ñu suñu dernier laaj day doon sa ay projet bu fekkee am na ay dat wala gannaaw single bi nga ñu may muy c'est beau est-ce que amaat na yeneen single yoo nekk di prévoir. waaw si album la nekk nii sax album la. ok album la waaw album bi maa ngi. donc single bi lancement album bi la ko waaw lancement album bi ndax single bi génn na ci album bi génn def nañ si ñaar. waaye si ma Abdou Aziz Dabakh. Hmm. mu ngi mu ngi clip sax moo def nañ ko clip mu ngi YouTube nii. Hmm. waaye bii leen mujjee génne na c'est bii nii. moo hmm. génn vendredi bii passé. waaw di nuyu Pak Pak Dijé maa ngi koy nuyu. Pak Dijé liggéey bi rafet na set na. bu baax la vidéo bi set na macha allah. Mhm. di nuyu musiciens yi ñu si joué ñëpp maa ngi leen nuyu. ñoom mhm. Ibou Mbaye ak ku lim di nga juum nuyu naa ñëpp. Mhm. waaw. très bien du nuyu na sama jabar. waaw aw buuru këram. si ak jabar yi aka ñoo ragal seen jabar yi man <laughs> tëggkat yi man loolu ma ko booy waykat yi sax mën ñëw wax ba pare duñ nuyu seen jabar yi mais tëggkat yi dañoo ragal seen jabar yi aw ah, ah, ah. da ngay waaj hmm. jëlal micro bi daa wax ko ci micro bi dindil micro bi seew xaaral <laughs> damaa bëgg maa bëgg a tas këram may leen tuuti rek ma yëngal ko jaxase ko jabar ji téyel téyel da ngay takk ñaareel yaa ko wax yaa ko wax léegi non non takku ma ñaareel takkoo léegi booy bi booy bi la gunge bi ngay ñëw booy bi la gunge fii bi ngay ñëw télé bi kan la <laughs> nee naa la dañoo ragal seen jabar yi xool instant bi mi ngi xalaat naan mën naa wax dem fekk bagage ci bunt kër gi yow xamoo ah oui dañoo feres de. macha allah mais macha allah ñu ngi koy nuyu fii neex na émission bi waaw. non di ñëwaat sax. da ngay ñëwaat. damay ñëwaat xam nga fii li fi neex mooy on se prend pas la da ngay mel ne ku toog ak say xarit sa biir salle. fii kër gi la maison. te temps yi maa ngi waaj wut benn booy bu may tegal fii ataaya ji. ñuy waxtaan di naan ataaya. Ah, di yëy caaf. Ah, artistes yi duñ dem de. waaw loolu la émission mën naa jeex booy ne duñ ñibbi. Eh, looloo baax na. <laughs> teg ko nii waaw. caaf géeg yëpp di daw. wuyaay loolu def ko morso. Ah? loolu def ko morso. tegal sa eh, ataayo boole tegal sa ataaye def si caaf. tegal si ataaye def si caaf. cey eh tegal sa ataaya def ci jaam tegal sa ataaya nga nga def ci jaam tas mbax ras ca def ko single léegi maa la may maa la may boobu roccil bi dee ko ci boole tegal sa ataaya def ci caaf jeex fu caaki moolo wuy waaw dama koy def léegi studio du yàgg. studio balaa booy di ko sàcc. kii dama dem studio léegi du yàgg su ma jógee fii léegi. am na ay booy tëggkat yoo xam ne ñun rek la ñuy seetaan ay ñoom. xoolal Ndiaye su ma jógee fii léegi. ay ñoom caat ambiance bi dëkk yëmbal fi ñu toll ni xoolal. xoolal koy jéggi di ko def single. yow lii single lii lii déggal moo lii day def single léegi du yàgg. du yàgg ñu ko. Lamine kontaan nañu dama bëgg ñu tàggoo Lam euh, Mohamed rek may jàppale ci clip bu Sebo bi nga kale ko bu ñu tàggoowee rek nga may ko téléspectateurs yi ñu tëjee ko en tout cas kontaan nañu ci dalal ndaanaan bu mel na yow koo xamante ni suñ borom dimbali na ko mu parcourir mën nañu wax ci li ëpp ci àddina dem fu nekk ci monde bi ànd ak sabar te loolu suñu culture la ñun suñu ay artistes ñooy suñu ay porte drapeau parce que ñooy génne suñu culture di ko wan tubaab yi di ko wan nasaraan yeeg nit yu weexeek yu xonq yeeg yu ñuul yi donc loolu c'est une kontaan nañu ci bokk ak yow plateau espérant que di nga ñëwaat incha allah euh, beneen yoon yaakaar naa niñ la dalal neex na fii moom benn artiste du fi gedd bokkul ci plateau télé yi nga xam ne dañuy merloo artistes yi wala artistes di mer di gedd wala artistes yi naa fi ñëw wala dama bëgg ay sew aasi fii ah, da ngay firi ñu mer la à l'aise valoriser la mais yeneen télé dañ lay invité ba pare gedd loola di la merloo ah baax nañ trop mais ay seytaane lañ <laughs> maa ngi moom dañuy jaxase rek <laughs> Lamine ma bàyyi la nga tàggatoo. ah mais nag di wax projet yi. waa ah, ñoo ñu waajal. soirée bu mag incha allah Madison. incha allah ñu waajal suñu koñ suñu suñu suñu milieu. Fass Fass Madison Médina ñoo ngi nuyu ñëpp Fass Gueule Tapée Médina. ñoo ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. di ne ñoo ngi waajal nag événement bu mag Madison di waajal Five ñoo ngi fay waajal soirée bu mag ak avec Lamine Kaolack ñoo ngi koy waajal. Mhm. Sarano ak Sarano ñoo ngi fay waaj incha allah. incha allah waaw ñoo ngi waaj ay événement incha allah bu soobee yàlla. di nuyu na sama orchestre bi sama gars yi nuyu naa ñëpp macha allah. jaajëf Lamine Asi ñu tàggatoo suba ñu dellu si moom mi ngi wax léegi léegi waxi Sorano xam naa ne suba ki ñuy dalal sax mi ngi waaj bés Sorano faatu ndigal la ñu war a dalal incha allah rabbi bu soobee yàlla moom itam muy ndaanaan di wëyli wëyli vendredi wi tombeeg le 23 dafay def li nga xamante ni moom moo di spectacle am foofu ca Sorano waaye nag mu tudde ko jigéen ñi. parce que thème bi no violence aux aux femmes la donc lutte contre violence bi ñuy def ci jigéen ñi te mu nekk thème boo xamante ni thème bu am solo la parce que Fatou Ndigal moom c'est l'avocat des femmes moom mooy avocat wu jigéen ñi donc vendredi incha allah rabbi dinañ ci euh, ñëw xam naa du ñàkk 7TV dina. def liggéey bu am solo suba moom la ñuy dalal ñu waxtaane loolu bu soobee yàlla ak yéen ko incha allah ndaanaan la faat ndigal ndaanaan la ak a mën a way mm. ah, léeg-léeg mu way nee naa man léeg nga jooy ci loo xam ne da ngay jooy ma jooy fi ma toog <laughs> day way ba mu nekk muy jooy aja aasi moo ngi noonu donc ñoo ngi tàgg mbokk téléspectateurs yi di leen wax euh, à demain incha allah di nuyu bu baax a baax euh, yaa ma ko doon laaj léegi mm. euh, yaa Seyda Tata Ndeye Seck ñu ngi leen nuyu bu baax a baax baax billaay ku baax nga dafa def lu ma samedi dama toog ba 17h. Mhm. bi salle bi paree gars yi teg table yi décoré. ñaan pression bi commencé yéeg nag ma xool table yi mu bari séeréer bari salle bi yaatu lool ma ne ah li maa dina fees. ma décroché muy yàlla xam ne xaw ma sax moom yaay bu nekk kaw dañu seetaan mosuñu ko gis mais daf ñuy ñaanal mu woo ma di ma ñaanal mbaaraan ma ne ko ah mu ne ma mbaa tiitoo ma ne yaay tiit naa ne mu ne ma wallaahi lépp day baax.

léegi nag li gën a yomb baal ma jëndal la moto ngay nga bàyyi cag-cag yi ngay jël <laughs> ñëw na ci bi kaay ma wax daa ñëw ci bi jox ma segu 400000 waaw ma ne ci lay yem mu yëkkati bi verle buy jar 850000 bu bees tàkk venant def kayit di sama tournée ma am sama waajooju yàlla yàlla defal ko jàmm waaye moomoo business kenn du moom ci man suma xarit boobu yàlla yàlla defal ko jàmm nga xamante ne moom lu mu am yéene na ma ko bégee bu baax a baax suma mag ji kati mbay waaye suma yaay mi nga xamante ni ko jàmm yaay Fatima yàlla yàlla defal ko jàmm yaay Mounas yaay Pa Ousmane suma yaay en tout cas kontaan nañu ci ci ci mm-hmm. euh, may ma clip bi on se dit à bu soobee yàlla aywa